yéen a ngi teewlu info 221. jërë ngeen jëf mbokku info 221 ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd bés bu ne dañu àddi wax rek ci kàddu yu duppee ci Aminata Touré ci tontu bi nga xam ne mi nga xamante ne daf doon woote rek ab dialogue politique moom Aminata Touré mi nekkoon njiitam jëruñ ba woon di premier di xam ne ne Macky Sall lu mu bëgg rek loolee du mënta nekk lépp lu jëm ci nax na fas yéene nasaxal askan wi wala suuxat leen ba xamale rek ne troisième mandat war na ko mën a am loolee duñ ko nangu fii ci réew mi moom Aminata Touré daal di dellu dellu si ne Macky Sall dafa war a respecter lépp lu jëm ci loi fondamentale bu constitution Sénégal buñ fi samp moo gën rek mu nar a jël di noyé maanaam jën bi di ko digal ci ndox mi di ci prox ndoll ngi di euh, nax askan wi bëgg ne na a am bu li jëwriñu Elimani di Amadou Ba daal di wax le rek fexe bi bëgg a samp wi ne Macky Sall nag euh, mun na amaat troisième mandat loolee bu ko defee du respect mu li di constitution waaye tamit na xam ne du mës a ci lu jëm ci ñetteelu

jëm ci wàllum euh, mouvement ngir rek mu daal di si sukkandiku waaye nag faw rek ñu daal di taxaw temb ci Macky Sall mi nga xamante ne dafa bëgg a diigal jënd gi ngir rek daal di sukkandiku di xam ne rek ne dialogue bi nga xam ne daf ko woote daf cee bëgg a naxaat askan wi rawatina euh, démocrate yi ngir ñu daal di ko nangu nangu lépp lu jëm ci ñetteelu mandat waaye loolee nag duñ ko daal di nangu woote jàmm ji nga xam ne nag mi ngi koy sàkku moom moo ko war a njëkkee bu ko njëkkee ba askan wi jot ci mu doog a ñëw ci ñeneen ñi ndax réewu république lañ nekk moom mi nga xamante ne Macky Sall mooy gardien de la constitution war warut xaar rek ñu daal di amal jàmm ci réew mi moom moo ko a sàkku sàkku ko ci kujj bi fas yéene amal ay élection yoo xamante ne benn fitna ak jafe-jafe du fi am waaye lépp rek dañ koy jaarale ci yoon ci anam yuñ ko bëggee ci dem nag ci ñetteelu mandaam bi mu daal di ko teg ci suuf te may ñi nga xamante ne ñoo ajjo wala yelloo ngi rek amaat li nga xam ne rek mooy bokk ci mille vingt 2024 yi lii dee di amina Aminata Touré ginnaaw nag bi nga xamante ne président Macky Sall mi ngi doon sàkku ñoomal ab dialogue ci lu jëm ci wàllu jàmm fii ci réew mi